الصدور أجامع تجيب مولا صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كنتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رزق كل من بارك الله الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين summa xalaqa nutfata alaqatan fa xalaqa alalaqata mudgatan fa xalaqa almudgata cidaman fa kasa alcidama billaxmi waljildi almatin wa shaqa lahu samcan wa basara وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شأوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين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 ذي القلب الرحيم سيدنا محمد الذي إذا رأيته لرأيت وجها قمريا وجبينا أزهريا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين ورضي الله عن تاج العارفين وممد كل أولياء الرحمن صاحب الأنوار والفيوضات مولانا أحمد بن محمد التيجاني السالمي سقانا الله من فيض بحر نوره رضواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki Jolof ak li ko wër ñi dëkk ci dëkk bii di muy ak gan yi ñëw wuyu si góor ak jigéen mag ak ndaw jullit ak kudul jullit ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi jiital ci nuyoo bi aimma yi ñu fi fekk yépp nuyu boroom xam-xam yi jaare ko ci Muhammadul Habib Njaay nuyu daayira bi jaare ko ci Cheikh Aline Badara Njaay Aline Badara yàlla na yàlla sàmm damay wax ni lekk lekk lekk lekk sawaay daal booy def lu mu def ci lu baax diggante daaw ak ren nga wax ko léeg-léeg xër lay doon waaye mën na doon cat kon nag ñu li ñu war a wax ci yow lépp dañu koy soppi ñaan Sidi Ahmed am na lu mu wax waaye waxul lépp ngir ragal loolu ñaan gi mu la ñaanal yal na ko suñu borom subhaanahu wa taala nangu waxuma jëf yi waxuma conseil waaye lii lii muy def rekk yàlla dogal nga jiite ko sax la ci lislaam yépp ma ni nañoo gàmmu ci muy ndax ñeneen a ngi gàmmu feneen mën a tant te duñu àgg fii tant bii ku ne xam na ni tantu xel koom baas la bu ma juumul du moom waaye ku ne xam na ni tant bii caaxaan jëlewu ko Dakaaru andi ko fii doonte ñoom dinañu ci def ta yàlla tax waaye mënoon nga tant te doo àgg fii kon boo tantee nii man de wóor na ma bu ñu ne woon président de la république day ñëw fii kenn mënu fee tànt lu dàq lii waaye bu ñu ne woon nit rasulillahi day ñëw ci gàmm gi kenn du ni nañu tànt lu dàq lii ndax yonent bi day ñëw nii tànt bi mel daal nii rek lañu koy bàyyi bàyyu Fatima ak daa daagu ñëw te bu ñëwee kenn du rus kon yàlla yàlla yokku sa sutura na yàlla sàmm mbooleem waa muy te mbooleem yi ñi tànt tànt bi mbooleem télévision yi nga xam ni ñoo fi ne ñëpp yàlla yàlla defal leen li ñu bëgg Sidi Ahmed ñu ngi lay nuyu gaa yi lekk-lekk seen yaram day tàng ba duñ ñu yërëm moo tax da ngay ne ci li nga ne rek Habib waa dëkk bi ñoo ko yónni moom ak waay ji taxawoon nii mooy lan heure bi dafay dafay xat ndax lan dañoo doyalul xam nga nag loo xam ni du doy loo ca am jël waaye dangay xam ni cofeel gu ñu la ëmbal la moo waral ñu lay def rapidement rapidement rapidement pour nga gaaw waaye nag yow yaay xam sa bopp xam ni ku jur yërëm ku jënd sa kanal ah alxames ci lii la ñu fanaan ca gin gi néew ajjuma ñu fanaan ci démb ca paas daara tey ñu yendu ci ca lingeer ca kaay baax ñu ngi fii incha allah fas fi fanaan bu ñu xëyee suba ñu nga jëm guy mariama ca médina incha allahu conférence bu tasee incha allah ñu fanaani Kaffrine ca kër Baaba Ndaw bu tasee incha allah altine férié la ñu dem ca Sendou fa la ñuy yendoo lii incha allah bu tasee talaata le trois avril ñu dem ca marché bu tëngee ca commerçant ya commerçante ya bu loola tasee guddi gi ñu dem ci waawan pël fanaane ko fa incha allah bu tasee alxames ja ñu dem euh, le 4 avril ñu dem déen déeni biram ndaw incha allah xanaa semaine bi jeex na bis boo jël ci semaine bi rek yendu fii fanaan fii loolu nag boo ko xamee te foo dem di yuuxu di xottiku di tëbëg di dalak di dikk bu la nit ñi bëggee bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ba naan la nangam ak nangam heure bi day xat danga naan waaw rek waaw rek waaw rek waaye daal boo demee ma fi nga mën a yem nga ni nii arbitre bi ba mu xool la nga ni ko nii mooy génne ma ndax bonul arbitre bi génne ma bu la arbitre bi lee boppam armeel ya a jëm Sidi loolu rek ngay déggee wax ji yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla aar la gàmm muy bokk na ci gàmm yi nga gën a fonk waaye gars yi maa ngi bëgg a waxtaane tey sayyidul awwalina moom daal waxtu wi mu xat waxtu wi mu yaatu moo dina ñu fexe daal ba fu ñu ronoo bâche téye micro bi dinañu denc suñuy soxla fexe leen a wax ki waral ngeen tànt tànt bi ki waral ngeen ray nag yi ki waral ngeen togg ñam yi ki waral gan yi daw kilomètres yu bari ñëw waaye mani mas naa gàmmu fii ma ni leen Cheikh Ahmad Bamba xayrul xadim bàyyi bas ak baara ni ixyaau mawlidil bashir yaxmil ayaala wa duyur dem naa dema dem kera ba ci jasbul xuluub ma ni leen Serigne Touba ne dëkk bu ñuy gàmmoo ak bu ñu dul gàmmu xool leen ko di ngeen ko xàmmee bi may jëkk a ñëw muy gii ngero sax def naa ko ci yoon wi ñuy tibb suuf si pëne yi nuur ci biir ñu koy gas bi ma agsee loola laa gàmmoo ma nañu dem ba ci kanam du ñaan de waxi borom Touba waxi Seydi Hadji Malick la waxi Sayyidina Muhammad la du deñ fu ñuy tànt daal di fa tàntal rasulillahi kanam rek la jëm boobu léegi yàggul yàggul de waaye defe naa ni yoon wi tane na ni mu meloon de am na at moo xam ni bàyyi daaw góor mbaay otoom daa ngéro kero ci sama sobak sama dëgër fit maa wàcc sama oto génne ko ba pare doog a jël tey jii defe naa kenn ngéroowul de wala am na ku ngéro defe naa kenn ngéroowul kon benn dolleeku na am na at moo xam ni fii xaaji badara lu ne def na ko ngan dem groupe la fi indi solaire bu ne taal na ko waaye defe naa ni tey kuy dugg muy ku ne li la naan muy a nga muy a nga nele mooy lamp ya nuurun min an nuur yi faydan alal axlaaqi yallaahu da ngay toll ca kamara rek ca kamara ngay toll seen muy leer nga naan dëkk bay leer ban la ñu naan la muy la néeg ya leer na ëtt ya leer na ba mbedd ma leer na xam nga loolu ku ko man barke sayyiduna muhammad yàlla nay seen muur ni dëkk bi leere daal ni dëkk bi leere yal na yàlla leeral suñu mbir yépp noonu bu ñu duggee bàmmeel yal na suñu bàmmeel leere noonu bu ñu yéegee siraat yal na siraat leere noonu te gaa yi siraat jar na bàyyi xel de dinaay wax ni ñeent a ngi nii ñeent a ngi nii ku am xel ku ne war ko bàyyi xel ñeent a ngi nii ñu ngi koy sàggane waaye ku am xel daal yaa ngi koy xame ci jàpp ñeent yi gaa yi ni ma yan la ma ni bi jiitu mooy bi jiitu mooy man taraka dunya xabla an tatrukahu ki góorgóorlu daal ba bàyyi àdduna abaa ko àddunay bàyyi kooku yeewu na am na xel waxuma dëgg àdduna day bàyyee gis naa fi sama bàyyi yoo xam ne ci tànt bi ak sama ay ndey yoo xam ni ci tànt bi bi bi leen àddunay waajabaay a tolloon nañ guddi yoo xam ni ku leen xool xoolaat leen ngir lan mën a sañse ngir lan taaru ngir lan kanam gu naay yi ngir lan bët yu rafet ngir lan bëñ yu rangaloo ku leen xool xoolaat leen ngir taar waaye bi leen àdduna jàppee ñuy fekke tey ak suba di fekke ren ak déwén yàgg ci muy di jaabante muy ak daara di jaabante daara ak Linguère di jaabante muy ak Louga di jaabante Louga ak li Kébémer léegi nii ñoom ñooy xoole bëgg ku leen xool te kenn nangootu leen a xool léeg-léeg sax ñu romb te kenn du leen gis yaay booy am na wala billaahi am na am na léeg bët yi naqari nga wuti lu ne takk àddunaa la bàyyi léeg-léeg da daan naan pëcc daal di jóg daw kera damay gàmmu ba mu yàgg sama yaram tàng ma naan nii xam nga bu sama yaram tàngee rek ba ma rakkaaju xale yi naan ma waaw sëñ bi mais manoo gàmmu te bàyyi tëb yi ma ni àddunaa ma ko may rek bis bu ko nangoo rek dootuma ko def kon nga góorgóorlu ba bàyyi àdduna avant la àddunay bàyyi ndax àdduna day bàyyee de seen góor ga ca sa ceem gaar maam Seydi Aji Malick mii ala daaru dunya daaru nawka yu jaazibu a fa تلك كليب ألا إنما الدنيا سراب بقيعة فيحسبه الزامي إليه يجوب يجوب إليه مساقات وإياه لم يجد بشيء وإن الحين منه مصيب لا أسحر من هاروت ماروت قال زال شفيع لكل المذنبين حبيب ما مولوني إيه إيه أدنا مد la medd nag xaj yeeg tan yee koy xëccoo waay waay àdduna médd la médd nag xaj yi ak tan yi ñoo koy xëccoo maam Maodo ni yow mi am xel góorgóorlul ba bu ñu la fekk ci médd gi mooy lan waxul ni bul bëgg kër gu rafet bul bëgg oto bu rafet bul bëgg tànt bu rafet bul bëgg mbub mu rafet déedéet mamalaaji Maalik xam nga lu mu bëgg a wax mooy àdduna bu mu la jaral lu yàlla tere nga di ca ne ngir àdduna ndax dee day bette dégâts yi te lu bañ dee fekk la ca bul ca nekk ma ni dee day bette te lu di bañ dee fekk la ca bul ca nekk man borom tuuba xayrul xadim bàyyi basak baara la laa tashtari dunya bil uxra yaa fatan man baa an huuran bi duja fa sa yandamu sëriñ tuuba ne bul jënde sa àdduna sa àllaaxira bul ko jënde àdduna ñu ni borom tuuba lu mu ni képp ko jaay àllaaxira jënde ko àdduna bis dina jot nga réccu te ñun léegi nag gaa yi nañ leen waxtaan xool leen àdduna tey lu mu ñu jaral ñu ngi rey xale yi yaay booy yàlla boo ko ñàkkati ñu ngi rey xale yi ci senegal wala ci àdduna bi yépp sax ndax daj na léegi te li siiw li siiw damay bañ ku ma jël si fii ci muy laa ko waxe xaw ma ci dara xaw ma ñay rey xaw ma lu waral ñuy rey waaye li ngeen dégg daal ma dégg ko mooy nee nañu ñi rey xale yi dañoo am ay ñaan yu ñuy def ngir bëgg a falu ñu ni leen nag pour ngeen falu faw ngeen indi nangam ci xale yi am na sax ko wax ni dañu leen ni bu ngeen bëggee falu da ngeen di indi bëri ko dereet ku indi bëri ko dereetu nit di nga falu ma ni waaw ku rey ay nit ba am ca bëri ko dereet boo ko yóbboo ba falu léegi koy jiite ku rey ñépp koy jiite waxoon naa ko xale bu jigéen ba ba waa mayaare mayaare mayaare ba ñu xëyee génne information ni seeni calcul li mu leen jox àdduna tey lay tukki mu tombe woon ak ajjuma tombe woon ak 25 décembre gars yi xale bu jigéen bi wooma alaaji tafsir ma ni la baykat mu ni ma man de sa soppee laa ma ni ko yàlla yàlla def dëgg-dëgg soppe alxames ci ngoon la suba la ajjuma xale bu jigéen bi ni ma damaa dégg ni àdduna day tukki loo ci xam ma ni ko dégg naa ko de xanaa toog ko rek mu ni ma waaw amoo ñaan guy tax doo ci bokk ma ni ko bu ma ko amoon sax du ko ñaan bu ñëpp di dem loo fiy def bu ñëpp demee demal rek koo fiy desal waaye adduna ndax jar na rey nit te léegi àgg nañu ci de te yàlla ne man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa ka annama qatala annaasa jamia ku rey nit te tay ko tooñ kenn yàlla ne atte bi ñu lay atte mooy atte ku rey adduna bi yépp yow non seulement rayatoo nit yem ci waaye nga jël xale bu ndaw bu xamul dara deful dara bëgg àdduna rek jaral la nga rendi ko moo xam dañ laa fay ngir nga rendi ko moo xam yaa fay ngir ñu rendil la ko moo xam yow sëriñ bi yaa laaj xale bi xanaa bàyyi woo xel ida shamsu kuwirat wa ida nujumun kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت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 مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بلفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين sadaqallaahu alazim ñépp daje adduna bi ñépp daje ña jëkkoon a ba ci ñi mujj a ñépp daje suñu boroom génne xale su ndaw dëpp ko micro ni la yow diw xale bii nga reyoon lu mu la defoon ba nga ko ee eh, su boobaa tontu te adduna jaral nañu ko léegi te Serigne Fallou Mbacke mu mën a jàngale mi moo daan wax rajab rajab mooy anniversaire am da daan naan moom day moom day sama waa ji day Seydina Muhammad weer wii daal moom ci la ni lay rek man ni ci cëpp rek mooy ci la yéeg man ci laa gane jamono da daan naan moom day moom day moom day waaye xam naa daal àdduna daal moom man mbàkke daal xam naa ni ku ko bàyyi mu bàyyi la ku ko bàyyiwul mu bàyyi la moo tee ngeen koo bàyyi bala mu leen a bàyyi waay àdduna est-ce jar na ko te léegi daj na foo ñu ni xale yi nekkatuñu ci sécurité te àddunaa ko waral ndax àdduna jaar na toog ci sëriñ ni ko sama doomi wujju wi na dof na xel ma la mbaajoo que àdduna jar na ko man de damay sëy ci kër sama wujj wi nag sama dooma ki doomam ñoo bokk di dem école di jàng waaye moom de doomam yi seen xel yi daa neex ñoom daal ñooy jël première toujours lii nag xam naa ni bu ma ci jógul boo lëgee sama doomi wujju ñooy tekki man samay doom du ñu tekki léegi nag li ma bëgg sëriñ nga defal ma ko mooy nga lëmbaajeel ma seeni xel man nag bu leen rey sax bu leen rey waaye lëmbaajeel seeni xel rek moom daal fexeel ba samay doom nañuy raw ay doomam moo ndax àdduna jar na ko fa amma man taxa wa aasara alxayaata dunia fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqama rabbihi wa naha annafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa yasalunaka an ilsaati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yaxshaha kaannahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha yàlla ne ku adduna jaral loolu bàyyil xel ni bisa ngi lay xaar ñu yoor la bàmmeel nga dem safara dal nañ ci yàlla musal gaa yi benn ku nite na nite na ñu ne kan moo nite waxatu arab bi ni man bana xabrahu qabla an yadxulahu góorgóorlu ba tabax sa bàmmeel avant nga fay dem a ah, badara yàlla na yéex yàlla na yéex nga gudd fan lool yaag waa muy yëpp ak say mbokk ak say soxna ak say njaboot waaye yow de yaa ngi tabax sa miil boo lëgee bu yowmal xiyaamee bu la suñu borom nee loo daan terale Sidi Ahmad Mbaay loo daan terale si tafsir Abdourahman nga ni man dama leen a soppoon rek ngir rasulillahi li ñu daan wax ngir rasulillahi rek moo taxoon bëgguma ñu sonn bëgguma ñu wuti dara moo tax lu ma amaan rek sédd leen ci ngir seen xel dal ngir ñu ñuy gën a bëggal ci rasulillahi su boobaa day sa affaire baax yal na ko yàlla def tabax sa bàmmeel avant nga cay dem bàmmeelu léegi yi ku ko tabaxul kenn du la ko tabaxal de mani mani bu jëkkaan laa ni nit daan na sàggan ci tabax bàmmeelam ñu tabaxal ko ko léegi nag ñi ngay bàyyi gannaaw amuñu jot tabaxal la bàmmeel bu dee ni léegi bu ñuy tagas bàmmeel bu ñuy defar néew imam bi ci boppam bu ne nee fatiha 41 fa xul wallaahu aat 41 xul wallaahu aat ngay tàmbali jàng ñeen fukk ak benn bala ngay am juróom-ñaar téléphone imam sonné imam décroché naan kiy wootee maa ngi ci armeel yi may ma ma àggale woola buy coupé ñoom imaam léegi nga dégg ko mu ni fatiha gaa yi nañ leen àgg kër ga imaam talatu la bu la imaam talul ñu topp imaam du ñu la tal kon boo jiitalulul sa bopp sa bàmmeel foo jëm te maam Maodo noon nañu siidi baal ma bul way de maam Maodo noon nañu araaka nasiita almawta wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahri almamaati nasiibu ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimu ya dha alhabibu shahuubu ala kullu mawludin wa in taala umruhu sayad'u daa'i halkatin wa yujibu wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al umura tatubu maam Maodo ne ne e ku am bisu ngeen ku ne bisu dëj dina la dikkal bal leen ma ana Seex Sidi Maxtaar Mbàkke ngeen defee ni man a faju bu doon teree dem dina dem ana Serigne Abdoul Aziz Al Amin ana Serigne Cheikh Tidiane si góor ga ca ruq ba ma ni ana mu ñaataa ko bëggoon a gis jotuñu koo gis waaye kera ba waxtu wa jotee malakul mawti ba muy dugg kenn yëgu ko amul bur wi sama baay bërki démb alaaji xalifa fagay defagul ñaari weer anamu kera dafa génn àdduna ñu toog ñetti fan am ku ñëw ni ma billaay seen papa ji nitu yàlla la ma ne ko yal na ko yàlla def yal na ko yàlla def pour wax la rek sii nit ñi ma ne ko yal na ko yàlla def mu ne ma seen papa fan yii mu tëdd feebar ci këram gi ci néeg bi bu guddi jotaan dañu daan dégg riir mu rëy rëy rëy rëy àndandoo di riir ñëw ba ci kanamu fenêtre am bi taxaw fa bu ñu delloo dem dugg ci biir armeel yi bu ñu génnee ci armeel yi daal dañuy ñëw ci buntu fenêtre bi bu ñu jógee ci funeetir bi dellu armeel yi waaye ñetti fan yii mu dee lañu ñu gëj a gis mbooloo moomu ma ni leen yéen a ngi yokk wàññi leen man leen gëm naa ni sama baay nitu yàlla la gëm naa ko dama ko gëm rek aw ma ci dara lu ma leer nag dama ko gëm ndax ay jëfam ma waaye amul kenn kuy dee muy def bur yàlla bu lay rey du am bur wi déedéet yàlla moom silencieux la yore danaa la tàkk ka nga nekkal sax du xam ne yaa ngi dee fu ñu jëm bis dina jot ñun ñëpp ñu dugg ci bàmmeel yi kenn manu ci dara ñu dara la lu ñu lay lu ñu lay gungee baatu laa ilaha illallah moo baatu laa ilaha illallah comme moom la ñuy gungee tee ñu caane bala ñu ñu balaa bis baa jot sëriñ Fallou Mbacke ba tey mu mën a jàngale mi benn waayu daa ñëw sëriñ bi jënd oto oto bu bees sëriñ waa ji ñëw ni sëñ Fallou oto yii nag rayee rek la ñu man dañoo gaaw léegi daal indil naa la gàllaaju oto goo xam ni fekk nga koy takk ci oto bi doo dee ci oto bi mukk sëriñ fallu ni ko ana gàllaaj gi waa ji génne geenu nag jox ko ni ko geen gii de boo ko takkee ci oto bi bu soobee yàlla Mbacke doo ci dee sëñ Fallou di xool geen gi ba muy yàgg ni ko billaay yaa baax te bëgg ma tey moom moom moom ana borom génn gi mu ne ko ci nag yi ñëwoon ci màggal gi la ci la ñu ko lottal sëñ Fallou ni ko waaye yóbbul génn gi waaye génn gi terewu la dee borom génn gi di ma teree dee man Fallou bàyyi ma yàlla rek baax na. yaay buy léeg-léeg damay xaw sori waaye nag tàyyeelu ma bu ma soree ku kii rek yëkkatil sa loxo ma kii bu fekkente ni danga nga tàyyee la kii nga kii ku kii mu kii mu kii ma kii ma. waaw kañ yaa ngi may yal na yàlla fay leen ñaareel bi mooy waajal sa bàmmeel ma ni badara maa ngi dugg ci rasulillah yi génnuma ci damay wax ni gis nga fekk ngay suul baayi jàmbur abib fekk ngay suul ndayi jàmbur abib xamagoonu dee mettee déggoo ma de dama ni fekk ngay suul baayu jàmbur ak ndayu jàmbur xamagoo dee waxuma dee de yow nga dee déedéet dama daan def ku dee rek boobu sama baay ngi dund sama ndey ngi dund yàlla na fi yàgg te waaye dama daan def ku dee rek booy jooy ma ñëw ah saway bul def nii nangam ak nangam nangam ak nangam waar laa waara waara waara waara waara waar ba sama gémmiñ ji saf waaye kera bi sama baay bi demee ñu laxas ko teg ci jaat gi suur mii sama rakk la mooy boroom lu weex lee ñu ñëw ci armeel yi ñu ne ko wàccal jëlal góor gi dugal moom ak oustaz Ablaye Gaye ak Mouhamadul Munir suñu rakk la ñoom ñaar ñoom ñett ñu jàpp góor gi du dugal ci bàmmeel bi bi ñu dugalee góor gi ba taf ko ci penku bi tàmbali def suuf dama ne nii suuf si rek mel ni dañ ma pikiir sama loxo yi bañ waaye ma forcé rek rangoo ñi tuuru gars yi naan ma oustaz bul def nii oustaz bul def nii may jooy rek di sotti suuf waaye bi ñu génnee ma ni yàllaay ngand démb rek ku fekkoon sama pàppa fi mu toog nga def nii cof suuf nii fekk ko fi mu toog rek nga ni ko nii moo xam laal na ko baa laalu ko dinga nga ma rey baa ma rey la tey jii nag ñun doom yi ñooy jël suñu bàyyi dugal ko ci kàmb gu xat gu lëndëm gi di profitoo ku ne di ja di góorgóorlu maa dàq sotti suuf ma ne yàllaay ngand ko yebu jaamu yàlla te xam ni fii ngay mujj kon waajal bàmmeel waajal bàmmeel bu ñetteel bi ban la ñeent laa la dikk dama lay jox ñett bàyyi benn ba gàmmu gi jeex ma jox la ko mooy kan man arda xaaliqahu qabla an yalqaahu mooy ki góorgóorlu ba bégal yàlla avant muy dajeek yàlla gaa yi fexe leen yàlla bég ci ñun waay nooy yàlla di bégge ci yow yàlla du ko ñuy yekkal yàlla du koy feebar ñu koy seeti. ci bunt bi ngay xamee ni bu doon dessinateur la te yonent bi doon ku ñu mën a dessiner alaaji Malick bu dessiné yonent bi bu génnee kenn du ni kii ku mu doon dessiné booy romb rek di xam ni kii yonent bi la maw doo xam alaaji yonent yàlla Muhammad wax la nu bopp amel ci bunt boobu wax la nu nopp yamel ci bunt boobu wax la nu bët ci buntu boobu wax la kanam gi nu mu mel ci buntu boobu wax la léppi rasulillahi waaye bala may ñëw foofu daal siidi xam nga gaaw li gën a gaaw ci bégal yàlla mooy nga fexe ba bégal rasulillah huwa akmalul wara xalqan moom de day day day day nuyu waa kër Cheikh mat Bamba yi nee na tànt bi tàntu ñépp la bu ñu ko tàntalee rasulillahi kan gu am nañu ko nee na kon mu ngi nuyu waa kër Cheikh Ahmad Bamba doomi maam Jaara Jaak maam Mor Anta Sali mu ngi nuyu waa kër Cheikh Ahmad Bamba yaakaari Cheikh Ibrahima Fall baabul muridina wal muridaati waa kër Cheikh Ahmad Bamba maami Serigne Mbacke Soxna Lo maami Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma baayu Serigne Modou Moustapha Mbacke joobe sayyidina Muhammad rasulillahi huwa akmalul wara xalqan wa huwa akmalul ne ci tant bi xoolal ki nga dendal nga jox ko loxo ni ko baal ma ak baal naa la ma firil leen waxi borom Touba. joxante leen loxo baaloonte leen ak yal na yàlla boole ñu baal ci barke Sayyidina Muhammad Rasulillah. maa ngi lay bëgg a wax doomu Abdoulaye Diack الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله الله baayu Serigne Saliou Mbacké ngi lay wax kan mooy Sayyiduna Muhammadu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 ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هو أكبر ولا خلقا maa ngi lay bëgg a wax doomu Abdoulaye Diak Amina Seydina Mouhamad Maamu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani هو أكبر ولا خلقا borom Tuubaa nee na Seydina man huwa moom akmalul waraa moo gën a mat mindeef yi xalxan ci bind moo dàq ñépp bind wa xuluxaa waaye ni mu leen dàqe mi di la leen gën a jikko moom rasulillahi Touba nee na wal mislu xattu lam yura ku mel ni Sayyidina Muhammad lam yura ma suñu koo gis ci ñi jot a juddu. walan yura fi siyami. borom Touba nee na ku mel ni rasulillahi walan yura kenn dootu ko gis ba mu ko fi siyami ci jikko. ahmaduna. damaa guddee rahmatuna. rahmatuna. ni'matuna. ni'matuna. hamiduna. hamiduna. mahmuduna. فرحتنا فرحتنا والجود musridi amin borom Tuubaa ngi lay wax kan mooy sayyidina Muhammad rasulillahi alhamdulillahi inni li nabi abada yéen ñu sopp sayyidina Muhammad borom Tuubaa nee na waat naa ko ci yàlla man xaadimu rasul Sëriñ Tuubaa nee na man soppe rasulillahi man ku bëgg rasulillahi lu yonent bi bëgg man bëgg naa ko man xaadimu rasul nabiyuna al mustafa xayrul wara xaradi Sëriñ Tuuba nee na nabiyunal Mustafa xayrul wara xaradi nabiyunal Mustafa xayrul wara xaradi borom kafe gi yàlla boo ko ñàkkati ci barke Xaadimu Rasuul nabiyunal Mustafa xayrul wara xaradi inna allaha astafe Adama wa Nuuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin فضلنا بعضهم على بعض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 yu Serigne Mourtada Mbacke nee na Sayyidina Muhammad daal mooy sama càkkute fi kulli shay'in wa ma abaw ya baaw lu mu mënti doon Sayyidina Muhammad laa cay wër lu mu bañ ma bañ ko man Xaadimu Rasul damaa guddee ci xilaasu zahab bi laa dem seetal ma borom sa ceem gaar kër Seydi Hadji Malick lu ñu wax rasulillahi muhammadul xayri ma borom ñaari kaala ya baayu Serigne Mbaye Mansour baayu Soxna Faat Si Mansour yal na yàlla dolli leeram te taas ñu ci barkeem Seexal Haaji Mouhamadul Mansour ki daan jàlli jàngali ci ney taalibey baayam ya wax lu mu wax rasulillahi sabbahu bi ni nasatu ayahu bi ay <laughs> ay ay ay waxaat ko dégguma la في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دومي مام سوفي في نيان جاك مام الله جي مالك جوبي سيدنا محمد ربنا ربنا ربنا Mansour ne man day maa ngi doon wax waxi bëgg Salma ak Layla waaye nag folli naa mbëggeel mandargay mbëggeel gi ma bëggoon ñooñu mooy àdduna dama doon xësal waaye lan moo ko folli bi Taaha fan adam déggal Baay Laaji Mansour ne li ma ko follee mooy bëgg ki yàlla joxañ naan ko Taaha xoolal alquran boo déparé da nga naan baqara ali imran nisaay maida lan am la araaf lan faal tawba yunusa huud raadi ibrahima hijri nahli israyi këfi maryama taaha yàlla joxe ci rek yàlla muhammad naan ko taaha ma anzalna alayka alqurana litashqa illa tazkiratan liman yaxsha tanzilan mimman xalaqa al arda wassamawati al ula alaaji Mansoor ne ki yàlla di woowe taaha mbëggeelam moo folli mbëggeel yooyu alaaji Mansoor li Maalik nee na Muhammadun woo këñ six ci biiru yaayam ñu ni pëkk yaay yeewul mu yeewu ñu ni ko umirti ëmb nga lu ma ëmb bataran weer moo nu ñuy ëmbe weer kinaaya la waaye sayyidal umami sangu xeet yépp yaa komb mu ni appare ñu ni ko ida wadaatihi boo ko imbee sammi tudde ko muhammadan muhammad kon bi mu amee six mois ci biiru yaayam ci la ñu ko tudde muhammad bay laa ñu mën sóor ni sayyidina muhammad moomu la ñu tudde muhammad moo gën a rafet koo xamante ni yii la yàlla bind àdduna ak alaaxira kaw nay ni ñaari nekk téef yi àdduna ngay ne ba jóge fi dem alaaxira boo demee alaaxira benn nga ne fu neex fa baa fa ca des yàlla nañu nekk fa neex ña dem ñépp yàlla na leen yàlla yóbbu fa neex waaye Alaaji Mansoor ne sayyidina Muhammad mooy sangu àdduna mooy sangu alaaxira ab ya rasulallahi xayri nabiyil mursalin ay ay ay 123 999 la yàlla yónni xayri nabiyin mursalil départal ca maam Adama ngay départ. xayri nabiyin mursalil. yonent yàlla si saa jatoo قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي يوم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم نوح دمو يرنت أن محمد دمو رومم دي مصطفى خير نبي المرسلين آه ma bëgg a wax wa iz qaala ibrahimu li abi aadara atattaxidu asnaaman aaliha inni araaka wa qawmaka fi dalaalin mubiin wa kadalika nuri ibrahima malakuuta samaawaati wal ardi wa liyakuuna min almuuqiniin ibrahima nga xalaat mooy xaritu yàlla waaye baayu fatima du moroomam alaaji Mansuur ne muy Moussa digganteem ak Firawna kera ba mbir ma safee kaani yonent yàlla Muhammad ak suukar ba mu saf saf wa iz qaala Muusaa li qawmihi yaa qawmi lima tuuzuunanii wa qad ta'lamuuna annii rasuulullaahi ilaykum falammaa zaaguu azaaga Allaahu quluubahum wallaahu laa yahdil qawmal faasiqiin إني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبهكم بما تأكلون وما تدخرون نبي المرسلين xanaa xamoon ne yonent yàlla Isa bu ko yàlla defalee li ko yàlla defal yàlla nga ko defal ci leeru sayyidina Muhammadu xayri nabiyil mursalin seydi bu ëllëgee yawmal qiyaam bu awwalu nag aaxiru na suñu borom day jékki rek ni Isa ibn Maryam ya Isa nabiyil mursalin eh eh eh comme tubaab la daga naan Isa Oui, monsieur le procureur. xayri nabi mursalin. borom bi ni ko Isa ala baar. xayri nabi mursalin. Isa gi taxaw ci baar bi procureur a ngi wax ak moom. xayri nabi vous allez bien Isa oui je vais très bien mon procureur. xayri nabi mursalin. quel est problème non y pas problème est-ce que tu as es un fils de Dieu yaa Iisa bna Maryama a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummiya ilaahayni min duunillah yaa wax ni yow doomu yàlla nga sa yaay madam jëla yow ngay fils de Dieu yaa ko wax Iisa defaraat taxawaayam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 vraiment loolu waxuma ko te yellul ci man sax ma di ko wax maa yakuunu maa yambaxi nga koy firee yellul ci man manaan man doomu yàlla laa ndax yow yàlla doo am doom te man duma wax lu dul dëgg yellul may wax lu dul dëgg te nag yow monsieur le procureur bu ma ko waxee yow xam nga bu ma ko waxul yow xam nga parce que yow fekke nga démb fekke beeg bërki démb fekke tey te fas nga yéene fekke suba te man fekke wu ma bërki démb fekke wu ma démb man tey rek laa fekke li may dund yàlla ni ko loo leen wax maa qultu lahum illa ma amartani bihi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 yàlla la joo xam ne du feebar du màgget du gëmmeentu du dee te yàlla jooju yow la lii laa leen waxoon de yàlla ni ko loo xam ci gaa yi yaa Iisaa mu ni yàlla in tu'adhibuhum fa innahum ibaaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yonent yàlla Iisaa baax yàlla gaa yi daal boo leen di dóor yaag ñoom la ndax say jaam lañu bu fekkee da nga leen di jéggal yow sañ nga ko ndax yow yàlla ku baax nga te ku mën a jéggale nga jéggal la bëgg waaye ñemewu koo wax Sayyidina Alhaji Mansour woon ne sayyidina Muhammad du borom yonent yàlla Isa kera ngay xam kuy rasulillahi ñu ni Insa ndax am nga avocat Insa ni man am naa avocat ummatu Muhammad ñoo may témoin. yéen ay témoin yonent yàlla Muhammad ummatu Muhammad ni ñooy témoin yonent yàlla Insa. ñu dukkat dukkat dukkat dukkat jëm ci yàlla. Muhammadul Habib Ndiaye mu ni wii monsieur le procureur. yow yaay témoin Insa mu ni mu jëm may teemoy Iisaa noonu du mbir mi demee mu ni li Insa wax noonu la mbir mi demee de xayru nabiyil mursalin moo yow fekke woo ko noo ko xamee mu ni ko suuratul maida ba ma ko jàngee ca laa fekk loolu suuratu maryama ma jàng ko fekk Insa naan inni abdullahi ataani alkitaba wa jaalani nabiya wa jaalani mubarakan aynama kuntu wa awsaani bisalati wazakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayya yow Mouhamadul Habib kuy sa témoin mu ne man Sayyidina Mouhamad mooy sama témoin xayru nabi ñu jëli baayu Fatima ak Roqaya maamu Cheikhuna Tidiane malaaka yaa ngay duur ca njëmu àjjana ñu ngay rëkkal baayu Fatima ak Roqaya nabee ngi jàkkaarloog yàlla yaa habibi yaa rasulallah nabee ngay wax ak yàlla loo xam ci mbir mi nabee nga naan الحبيب يلا أمتي أمتي أمتي moo tax Alaaji Mansour ne moo gën ci yonent yi nit ak jinne ñëpp moo leen gën daa mel ni ni mu ko neexee daa mel ni noonu la ko yàlla bindee booy xool taaram na mu ko neex la ko yàlla bindee boo xoolee matam ni mu ko neex la ko yàlla bindee dellu sil alaaji borom parasol ba ne Seydi Aji Malick ne yow mi bëgg a xam na bi nag waajal waajal booy enregistré préparel booy bind préparel bu sa xel neexee déglul doomi maam Fawade Wele jeeg maam Ousmane ne doomu Abdoulaye Diack Amina loo ci bëgg a xam tey du la réer man Maodo maa nga diggante Tiwaawan jag saaw aynu maa di zume naa baayu Fatima ak Rokhaya zume naa maamu Cheikhuna Tidiane ba teg ko sama lëngër ñu ne Alaaji Malick mooy kan mu ne la